man maa ngi tudd Ndeye Binta Ouma maay directrice de la mise en œuvre euh, des programmes plan international Sénégal. merci jii nag dañu ñëw nag di lancer suñu benn projet bu bees boo xam ne li ko tax a jóg Yuka la mais li ko tax a jóg moom vraiment mooy engager les jeunes pour ñu aar seen bopp mais aussi inviter les communautés pour ñu man leen aar euh, loolu li ñu euh, si aar bi moom mooy violence souvent dañu gis que ni itam jigéen ñi en particulier les les jeunes en général les enfants mais les jigéen les les les jigéen ñi en particulier naan dañ leen di marier te seen euh, duñ ko bëgg wala ñu leen di def ay violence yoo xam ne c'est basé surtout le fait que ay jigéen lañu donc euh, projet bii nii c'est un projet boo xam ne sur trois ans la nar a mais mais l'objectif vraiment mooy euh, capacité formé sensibiliser les les les les les filles et les jeunes en général ba nu xam am assez de pouvoir pour mën a dem jàkkaarloog communauté bi jàkkaarloog yi jàkkaarloog en tout cas ñëpp ñi nga xam ne mën nañ leen jàppale pour ñu comprendre ni violence bi dafa war a doy dafa war a doy léegi euh, ba pare accompagner leen si seen lutte bi. waaw gox yooyu mooy goxu Ngunjaan Taset ak ak. nooto no nooto en fait gox yooyu noonu d'habitude bu doon suñu saga projet bi dëkk dëkk yëpp lay laal. Euh, mais dañuy commencer d'abord par des phases pilotes yoo xam ni ba pare suñu zone de parrainage yi nga xam ne foofu la ñuy tàmm di liggéey foofu la ñuy njëkk a commencer euh, léegi nag résultat lan ca nar a jël itam moom la ñu nar a utiliser après pour euh, en tout cas li ñuy mbëbët mooy Sénégal gi yëpp mën ci bénéficier. xeex bi na commencer nag bu ngeen gisee plan international ñu ngi fête sax sunu 40 ans def nañ ci jéego jéego yu bëri nag waaye de neexul ba neexul waaye ba léegi violence mi ngi mi ngi am. Euh, statistiques yaa ngi koy montré que ni violence ba léegi mi ngi am fi ñu ko fekkoon ak fi ñu ko bu ñuy def vraiment évaluation bi dinañ gis ni y a de changement léegi nii gis nañu xale yi ci boppam ñooy porté moom mooy ñoom ñooy porté combat bi ñun créé nañu ay initiative yoo xam ne papa yi par exemple école école des maris def nañ ko parent euh, euh, nun koy tuddee sa parentalité positive yooyu yëpp def nañ ko donc yaa bokk beaucoup de changement yoo xam ne def nañ ko mais neexul ba neexul liggéey bi des na moo tax nag ñu xalaat que ni bi yoon pour mu wóor que ni vraiment dina dañ dañuy engager les leaders communautaire euh, engager les leaders religieux ba pare engager aussi plus euh, les leaders politiques pour vraiment des lois yoo xam ni ñu ngi euh, ñoom ñoo nar a arrêter violence sur les filles. sànq wax nga ci phase test bi ngeen nekk phase test boobu ñaata ñaata weer lay durer. trois ans la nar a projet bi parce que itam projet foog nga togg ko ba mu ñor bu daal di def évaluation am ci ay feedback ba nga xam ne à la fin li ngeen di eh, li ñuy jot daal dina xam ne ku nekk dina ko mën a dupliquer sans problème. man la madame Ndeye Adama Mbengue di liggéey euh, plan international Sénégal donc tey jii suñu ñëw bi ci Thiès li ko wundu mooy dañoo am benn projet bu ñu naan Yuka. yukaa nag baatu anglais la mais soo ko tënkee ci tubaab mooy engagement wu jeunes yi pour que violent pour que méttitat li nga xam ne ñu ngi koy def xale yu jigéen yi ak fànn bu mu mënti jóge méttitat boobu mën a dàkk donc euh, projet bi nag li ci bees mooy jeunes yi ñoo jiitu ci mbir mi ñoom ñi nga xam ne ñooy ndeyu ndeyu billi yi comme ni ngeen ko xamee adduna ñaari tànk lay doxe ñun liggéey bu ñuy def ñu ne xale yu jigéen itam xale yu jigéen yi du ñu dem mukk te xale yu góor yi ànduñu ak ñoom parce que pour que ñun ñu mën a atteindre objectif yi ñuy wut pour que ñu mën a àgg fi ñu bëgg a àgg il faut que ñaari ñi nga xam ne ñoo composé société bi muy ku jigéen ki ku góor ki mais nag teewul nag ñeneen ñi nga xam ne ñooy gravité autour ku jigéen ki ak ku góor ki dañ ciy bokk waajur yi mooy communauté bi sëriñ yi ci ñun la ñu bokk euh, jàngalekat yi ci ñun la ñu bokk ñeneen ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne daal ay la ñu ay parties prenantes lañu pour que projet bi mën a dox projet bi bàyyiwul kenn. donc pour vous dire que projet bi daal projet la boo xam ne xale yi muy jigéen muy góor. ñoom ñoo jiitu pour que àdduna bi ñuy dund fii ci Sénégal mu mën a nekk dund boo xam ne dafay nekk dund boo xam ne du ànd benn violence pour que ñëpp mën cee gis seen bopp ñëpp mën a àgg fi ñu bëgg a àgg. waaw comme ni nga ko xamee loo gis rek dafay doox ci benn plan international am na ñeent fukki at ci biir Sénégal fii. ñeen fukki at ci dundu doomu aadama je pense que lu bare la ça veut xale yi nga xam ne tàmbali woon nañu leen di leen parrainer soo seetee ñu bare tey am nañu ñeent fukki at di jëm kaw donc xale yooyu soo leen jëlee jël seen rakk yi nga xam ne boobu ba léegi plan ngi liggéey ak ñoom ci région yi nga xam ne ñu nga fay liggéey yëpp ça veut dire que ñun am nañu masse critique ay xale yu jigéen ay xale yu góor yoo xam ne ak seeni waajur plan gunge na leen formé na leen tàggat na leen ba tey jii foo leen mën a yóbbu ñu mën a taxaw wax ak seeni morom sottanteeg ñoom ay xam-xam te loolu nag la bëgg tey gii ñu lawal ko ci biir Sénégal yëpp mu gën a yaatu tàmbalee ko ci Thiès gi nga xam ne projet bi foofu la dooree ak ndimbalu plan Belgique. Voilà, je suis Ndeye Binta Ouma, la directrice de la mise en œuvre des programmes euh, pour l'organisation internationale, plan international. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de, de nos nouveaux projets, euh, engagement des jeunes pour une société sans violence. Euh, cela rentre dans le cadre d'une de, nos euh, d'une de nos thématiques prioritaires, à savoir une société euh, de protection et d'inclusion. Ce, ce projet rentre dans le cadre de nos euh, stratégie pays, qui est le programme 2 qui aussi gère euh, la protection, l'inclusion et la bonne gouvernance. Et donc dans ce cadre, nous avons euh, travaillé, mis en place ce projet qui justement euh, euh, va, va, être développé au niveau de Thiès, mais avec des activités visant vraiment à renforcer Euh, euh, les niveaux de décision, mais l'engagement également des communautés pour protéger les filles, protéger aussi les protéger contre les mariages forcés. Ce sont les filles, surtout ce sont les filles, euh, au niveau, disons que dans les communautés, mais également dans les milieux scolaires. Mais ce travail, nous ne pouvons pas le faire sans l'engagement de toutes les parties prenantes de la communauté, euh, notamment les leaders religieux, les leaders communautaires, mais également les leaders politiques pour un changement euh, de, de longue proposer des sensibilisations, des formations, mais surtout mettre les, les jeunes au devant pour porter le combat, porter, porter, les messages et aller vers les communautés pour les sensibiliser. Uh mhm. -huh. Souvent, quand nous développons nos projets, nous cherchons aussi d'abord, euh, nous commençons par une phase pilote où nous, nous cherchons euh, les résultats que nous allons tirer de, de, ce, de, cette phase test aussi va servir de, partage. Et donc, plan aussi a un engagement particulier avec les communes où nous développons le parrainage. Et donc, ces, ces filles et ces familles qui sont dans nos zones de parrainage seront ciblées aussi dans le développement et la mise en œuvre de ce projet. Cette phase pilote, ans. trois ans. Et c'est avec euh, la coopération de euh, plan international Bel Belgique et le soutien financier de Yuka. Bonjour tout le monde, c'est Madame Ndaya de Mambeng, je suis de plan international Sénégal. Projet Yuka, l'engagement des jeunes pour euh, une société sans violence est un projet de trois ans financé par Plan Belgique en partenariat avec le bureau de plan international Thiès. Et comme vous l'avez vu ce matin, donc c'est un projet qui engage non seulement les jeunes pour une société sans violence, mais au-delà des jeunes, le projet compte travailler avec les communautés, les chefs religieux, les Badjanokok et les éducateurs. Donc pour vous dire que le projet essaie de ratisser large, mais tout en mettant les jeunes au devant de la scène pour amplifier leur voix afin que les violences qui sont devenues le quotidien des Sénégalais puissent connaître vraiment son épilogue. C'est les violences de nos jours euh, ciblent aussi bien les filles que les garçons, mais sans commune mesure, nous savons que les violences affectent beaucoup plus les filles. Que ce soit les violences physiques, que les violences sexuelles, euh, émotionnelles, les violences psychologiques, toutes les formes de violence aujourd'hui affectent doublement les filles. Et le traitement de ces questions de violence est devenu tellement banal que nous pensons à la limite que c'est des faits divers. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous arrêter de manière objective, analyser dans toute sa splendeur, dans toute sa profondeur, vraiment, ces questions de violence qui affectent et qui bloquent l'épanouissement de ces jeunes filles afin que nous puissions mettre fin. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation plan international qui se met au devant de la scène, mais c'est la, la jeunesse qui s'engage auprès des communautés, auprès des religieux, pour que ces normes, en tout cas, qui ne favorisent pas l'épanouissement de la jeune fille, puissent en tout cas connaître vraiment une fin heureuse. Je pense que, comme vous le savez, plan international fait c'est 40 ans de présence au niveau du Sénégal. 40 ans dans la vie d'une personne, je pense que c'est pas rien. Et en 40 ans, plan international, une organisation qui prend les enfants du, du berceau jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire à, à l'adolescence, a eu le temps de préparer une masse critique de jeunes dans différentes régions du Sénégal. Et aujourd'hui, ces jeunes sont devenus nos acteurs de changement. Et nous sommes là juste pour les pousser, pour amplifier leur voix. Mais ces jeunes sont conscients et nous pensons que ces jeunes vont continuer le travail pour enrôler une masse critique de jeunes avec eux afin que vraiment l'ensemble des jeunes du Sénégal prennent conscience et s'engagent à leur côté.